dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi quotidien moo xëy xibaar boo xam ne ku si jot bay boo nga jottali ko sa moroom xibaar bi doy na war xibaar bi yéeme na ndax ci biir réewum senegal am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi feebar ba maara day taali am jàngoro yu garaaw a garaaw te jamono ji kenn jëlu leen en charge maanaam ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métti métti négligence bu mag moo ci am ndax ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi jamono ji dañuy xëy di wax corona ba jant bi jàpp nañ ne corona rek mooy feebar jamono ji ci réewum Sénégal te am na ñoo xam ne amee nañu yeneen jàngoro yoo xam ne maanaam sonal na leen yeneen jàngoro yooyu sax am na si ñoo xam ne ñoo ngi leen di rey loole nag waa kër docteur maanaam ne ñooy faj ci lu jëm ci jàngoroy xol ñoom ñoo ngi koy naqarlu ba maara day taali ñoom sax ñoo ngi sàkk ñu daal di libéré hôpitaux yi jamono ji déséquilibre moo am ci lu jëm ci wàllu wér yaram gi journal bi di réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñoo amee jàngoroy xol toll nañ ci junni ak juróomi téeméer te jamono ji ñoo ngi xaar ngir nag ñu opéré leen te gisuñu ku leen opéré te maanaam xaar bi na te ñenn ñi ñoo ngi ciy faatu professeur Maboury la xam le nee na jamono ji am na ñoo xam ne dañoo feebar ba pare di daw hôpitaux yi la waral mooy ci réew mi jamono ji coronavirus rek la ñuy wax surnal bi di réew mi quotidien xëy di xamal ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ne ñi nga xam ne ñoo amee jàngoroy xol en tout cas sonn nañ ba maara detaali ñu bëri si ñoom ñoo ngi xar intervention chirurgicale te gisuñu ku leen ko defal yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy nag ci jafe-jafe yi nga xamante ni askanu Sénégal yàgg nañu koo dund te ba léegi ni gisuguñu saafara maanaam mooy mbënd mi inondation journal bi nee na diggante 2000 ak 2020 ay milliards yu baree baree bari ñu dugal ci inondation yi te ba léegi nii gis nañ ne askanu Sénégal maanaam ñoo ngi koy dund yéen a kaay gii di réew mi ko di jaay ñu fekk fa Cheikh Omar Anne mi nga xam ne moom lañ dénk njàng mu kawe mi la mu xam ne nee na benn fànn ci weeru sàttumbar danañu commencé waat njàng mi maanaam étudiant yi kuy xëy di wër ku mën a saaga ba artiste Moustapha Cissé Lo bay boo nga taxaw xam ne teeral nga moo yëkkati ay kàddu yoo xam ne kàddu yu ñaawa ñaawa ñaaw la jamono ji sax république bi ci boppam maanaam moo yëngu bu passé saaga yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo maanaam saaga na ko Yakham Mbaye saaga ko Farba am na yeneen révélation yoo xam ne Moustapha Cissé Lo def na ko maanaam ci lu jëm ci mbirum détournement sur facturation jëm ci train express régional ak building administratif ak ci lu jëm ci maanaam mbirum suufa laas yéene kaay mu ñu xamal na ñu saaga yi ak werante ya xastante yi nga xam ne gis nañ ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi loole nag askanu Sénégal maanaam metti lu nañ ko bu baax a baax naqarlu nañ ko ba pare am ci mbettee la yéene kaay gii du ñu fekk fa Mbagnick Ndiaye nee na war a ñoo tëj Assane Diouf ci kaso bi bàyyi Moustapha Cissé muy lambar lambari maanaam muy taxawaalo yéene gii di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdoulaye Makhtar Diop muy sàkk ñu jël ay daan maanaam lal ko ci ndodul Moustapha Cissé Lo yéen a kaay gii di Les Échos nee na Moustapha Cissé Lo Macky Sall wan na ko ginnaaw ba pare nag daal di wax commission discipline bi ñu woolu ko càmbar ay mbirama journal bi di Vox Populi mu xëy di ñu xamal lan ñu Moustapha Cissé Lo maanaam Macky Sall dina ko sànk yéen a kaay gii de La Tribune ak réew mi quotidien ñu xëy di ñu xamal lan ñu Moustapha Cissé Lo ci dàq ko ñu jëm waaye nag moom daan nay ci nag instance su bii di APR ak président assemblée nationale bi mu doonoon yéen a gi xëy na ci lu jëm ci aide alimentaire maanaam ceebu Mansour Faye bi giraawaleeku njombe guñ si wax ba jeexal jàpp ne noppi nañ si geneenu giraawaleeku geneenu njombe ñu daal di ko cay gis yéen a gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xibaar lu garaaw garaaw nee na ci yëmbal noora maanaam dañu fa doon séddale ab ceeb rang gi gudd na lool naaj yu tàng jër am benn soxna boo xam ne da doon xaar ngir nag jot si ab ceebam naaj yu jàpp ko rang gi gudd xaar bi yàgg soxna si daal di daanu ñàkk bakkanam ci ni mu gën a gaawee yéen a di Dakar Times xëy ci coow laalul suuf li nga xam ne moo am ci ndengaleera la mu xam le nee na jamono ji nag dafa am ñoo xam ne dañ si def ay manipulation maanaam ak i kàcc di ca wax lu dul dëgg ak mbirum chantage ak acharnement bi nga xam ne moom lañ teg ci Babacar Ngom loolee la waa Dakar Times xamut lan la ndax nee na ñu am na ay français ak ay indien ak ay colombien ak i turquie ak libanais yoo xam ne jox nañu leen suuf su bare bari ci réewum Sénégal kon lan moo tax Babacar Ngom waruñu ko mën a jox suufa yéene kaay gi di estat mu xëy di ñu xamal lan ñu Sadio Mané ma ngi ci forme bu garaaw a garaaw niki démb dugal na fukk ak juróom benn lu biom ci saison ren bi yéen kaay gi di estat xëy ci championnat bu Espagne nee na jamono ji maanaam course bi diggante Real Madrid ak FC Barcelone daat nay tar loola